doom dañ koy protéger. loolu la de doom daal dañ koy sàmm protéger ko ci boo ko mënee jamono ji nag dafa na xarit alaaji léeg-léeg nit ñi nekk ci ay xat-xat yoo xamante ni nii di ta maanaam boole ak ku la rey ba ngay yemale mm. léeg-léeg léeg am na ay jigéen ñoo xam ne li ñuy dund ci seen biir kër alaaji ah. laa ilaha illallah mm. wuy ma ah. wuy ma boole woon seeni jëkkër alaaji ah. wala seen i baayu jëkkër seen goro yu ne seen biir kër di leen fooye boole leen dee ñu suul leen léegi ci armeelu lu Yoff yi moo leen ko gëna ah léegi ndax lañ ca nar a dundee xaroo ko gën dañ naan mut am na ñoo xam ne li ñuy dund moo raw foof caabi féeti leen ginnaaw barki yu ninti bi dëgg la loolu moom dëgg la di alaaji ñi ngi ne pat ak moom hmm. yow yow xama xama alaaji moom li ko yàq kii alaaji mi surtout la joor ngoone la waaye waaye déglul rek déglul rek te gis nga yow alaaji gis nga yow alaaji ku xool say maam di wàcc di wàcc di wàcc li ma dal dalay dal yow da ngay métissé ci kaw di wacc di wacc di wacc di wacc bu ñuul gi mujj demine dama man nar la mom ñuul gi da demine waaw waaw man nar la am ay mbokki olof am ay mbokki séeréer deng am ay mbokki tukulor alaaji waye nar ga rek rek rek ak li ñi am fit yëpp ya ni de ko am sañ-sañ tok ci radio tumal ko sa jëk ah non ah. dama yaakaar ne xanaa nag du am na lu ci laale wala problème de couple kese parce que am ah. fu nit di yegg nag moom wax dëgg yàlla. déedéet surtout nag cim kilifa goo xam ne yow ñëpp dañ laa xam ngay hmm. ngeen wax lu nekk mën nañ laa tuumaal lu nekk. Hmm. Hmm. fekk tuumalu du dëkk. kantaan nag violé doom. mais alaay tuuma tamit alaay tuuma tam yàgg na fi di. tuuma yàgg na fi mais violé doom. waaw xaw a. mais alaay mais alaay tuuma tuuma tuuma. tuuma tuuma de. tuuma de man man waxuma de non non waxuma ne ndaw si li mu wax du dëgg mais tuuma de alaaj tuuma de gis nga yonent yàlla yusufa de xam nga lii lañ ko doon tuumaal de yére yére yéreem ba yére yéreem ba sobe ko boroom xam-xam ne bu dee poñam kanam la mm. moo doon songe bu dee poñam ginnaaw la yére bi xoteeku moom lañ doon song muy daw mm-hmm. ñu yegg yére bi alaaji su ma jumalee alaaj ca ginnaaw la xoteeku mm-hmm. ah ndax taar ba ko yàlla mayoon waaye daal xam naa ni daal xam naa ni daal man man li ma jaaxal mooy. jabar joo xam ni alaaji dund ngeen fukki at ak ñett fukki at ak ñeent. yéen ñaar si wu leen ay affaire communauté de biens dégg nga. Mm-hmm. Euh, euh, dëkkoo leen ci yenn dëkk yi daal ba mu war a mën a toog ci rajo. Mm-hmm. waxal la lu ni mel te laale wa ca dara. lañu ko tuumaa réer de. moo def ak deful de xam naa ne daal ah. xoolal sa téléphone di nga jot ay message yu bari yu lay wan ne daal ñu bëri dund nañu ko daal wala ñu ngi koy dund actuellement am na ñoo xam ne ñeme nañu wax am na ñoo xam ne ñu ngi ne muut nag toogaal ak moom mami nit nag moom tolluwaay bu war a am na ñenn ñu li ma ko ni ma ko waxee woon sànq ah, mm-hmm. lu mel ni doom mm. lu mel ni ndeyu jabar mm. lu mel ni rakku rakku jabar mm. lu mel ni sa bopp sax rakku bopp lu mel ni doomi mag

waaye yàlla na yàlla dolli sutura waaye góorgóor la rek waaye nag góor waaye nag li ñu naan góorgóor la góorgóor la yëpp waaye waaye góor nag war naa am fu mu yem nag day sol tubéy ah, ah, nag day sol tubéy nag day sol tubéy de ah ba pare ah. takk géñoo koy takk hmm. léegi sax dafa a kii léeg-léeg nga gis gone yi takk tubéy alaaji ba ko muy lang waaye solub tubéy ba ko muy lang waaye tubéy tubéy tubéy boo ko solee pare ah da nga koy takk takk de ba mu ni yi daal naan leen eh, eh, eh, geng geng waaw waaw waaw ku mbay na ni geng tëdd ci kaw na ni geng tëdd ci kaw aw tëddin waaw waaw waaye yow mi ponkal di bàyyi nekk nekk chef de famille mm. bu ñëwee fekk la ci kawlal nga ni ñonkos ci kaw xale fukki at ak ñeent ah. ñonkos loolu aajowul ñeenti seet booba de da ngaa sax ne leen ay lupp nga takk booba takkatul tubéy booba booba booba booba kay tax laay <laughs> <laughs> la ma la sama xarit ba waxal sama xaritu taxi man ma ne ma saay saay du du du du du tekki ñor da yoromal <laughs> ma da ko dëgg la de. caaya ñor du ko tekki de da koy yolomal rek nag. waaye li nga wax maa rek. <laughs> <laughs> baax na. ay mami Samb ma rey. yomba takk yomba tekki. wallaay dëgg la. yoo. kon yolomal lañ de. Ah, ah ah déet caay nag caay nag alaaj nag bokkul nag ak ak ak ak ah, ah, xeetu pantalon yi seere yi caay moom. caay moom boo ko takkul moom mu wàcc moom. est-ce que hmm. est-ce que caay caayam élastique day moom alaaj. caay caay day moom moom alaaj boo ko nii wul yeewu. Hmm. ah day day wadd de. moom kay moom kay xanaa roccantal gi mami di wax. xanaa damaa njort ni fekkuñu ko ñu mën a dungu. fekkuñ ko mu ngi dung laa jox du ñàkk de Ablaye Fam dana ca dana ca jëfu est-ce que ndaw si Alaaji fekk nañu ko euh, xool nañu ko ci wàllum paj <laughs> ba xam yegg xale bi ba xam yegg nañ ci moomam déet dem na nee na nee na seen poste de santé bi ne foofu ci bopp kon ñu mooy poste de santé dëbal dëbal yi waaw nee na foofu foofu la ñu njëkkee waaye bañ fa yeggee nee na docteur waaw Euh, ngeen jéggal ma waaye ñaar ñaar ñaaram yi muy joxoñee daal ba mu ko ca defee. Mhm. Euh, la ne gone gi yegg nañ ca kawam waaye yegg leen kër docteur foofu lañ leen di bindalee kayit ga. Euh, waaw waaye su doon su doon gone gi kenn fo foyoo ko ñaari baaraam yi ngeen baal du du du mun a mhm. yegg ci ma awraam. waaw waaye daal xam naa daal bu ko. ba ko ca docteur ba defee. ba ko ca docteur ba defee. daa dem waaw waaw daa sar. Mhm. waaw waaw waaw moo tax docteur ba nag ne ko sa doom gii nag fooyee nañ ko. waaw waaye yëggal ca l'hôpital bu mag ba. nga yaakaar ne ki yàqu waaw yëggal ca l'hôpital bu mag xale bi itam xam ko fooy bu fukki at ak ñett moom. ah kay. jànq la. alaaji wax na xamoon am na ay 14 ans yoo xamante ne nii fi mu ne nii eh, eh, yax yi siggi tànk yi siggi la nu yor. waaw boo leen xoolee da nga naan ñii nii amuñu. amuñu 15 ans surtout surtout surtout ñu leen dañu naan seng ca kaw seng seng ni mu sengoor. yàlla xam na ni waa ji. seng waa ji ne fa rees na ko duma de. ah déet déet daal defal ndànk. doo bàyyi ba alaaji alaaji yow da ngaa gaaw ci duma de alaaji yoo xam ne alaaji am na yoo sariya bu doon daw fii alaaji bañ dénk la mm. ministre ak ak sariya mm. alaaji di rey ay nit par erreur ba mbaari détail maa la nga xamal ne am na loo waaw waxuma loolu dama ne yow alaaji yow yow sam door a gaaw ah. yow alaaji sam dóor gaaw na benn sam plainte gaaw na alaaji yow sam wàccee nit ci boppam moo gaaw moo jaatu ah déet déet alaaji nag lu jëm ci wàllum njaaloo nag waxuñ loolu de yow kii ah déedéet déedéet alaaji alaaji yow kii bu dee bu dee dëkk yi am loi islam dañ lay rey balaa ñu laa rey kat waxambaane yi ñu wax danañu teew waaye ah déet defal naa alaaji ki bu fekkee koo xam ne ak payam ak payam ubbeeku na waaw waaw non defal naa mais bu dee xale bu ah, payam ah, ah, da nga ko da ko da nga da ngaa fekk kuur gi tëgg na nga boo ko ci fekkul itam déet déet déet déet déet déet eh. déet defal ndànk alaaji kat ah alaaj gaaw yi alaaj yow da ngaa gaaw ci rey de. alaaj touché nga sama domaine nag touché nga sama domaine. ah ban touché sa domaine. <laughs> domaine boobu kay domaine ñëpp la boobu naan naa ko. ban naan nga ko. ci fiq déet ah, alaaji man sariya bu dee njaaloo waxuma la xaqiqa parce que waxuma la leen man sariya laa sariya laa lay wax loolu ah, déglu rek alaaji ma expliqué de njaaloo ñeenti ñi <laughs> waaye bu dee koo xamante ni majeur gul nga xam ni moom xamagul sëy waaw bu ñu ko seetee waaw xam ni sëy nañu ko see seeyee nañu ko. loolaay seede ko waaw léegi kan moo leen ne kañ wax ne moo moo ko seeyee ne moom koo koo ko seeyee. moom moom mi seeyee. moom mi seeyee moo ko. moom mi ñu seeyee waaw moom mi seeyee ah non non non. xam-xam moo xam-xam moom mooy ko. non waaw xam moo ko définir. ni seeyee nañu ko mais mais xam-xam yeggul ca ne. kii ñu joxoñ ne moo ko seeyee moom moo moo seeyee ko nekk. ah déedéet déedéet non alaaj na xam nga xam nga seen légèreté la xale bu xamagul dégg waaye mais alaaj xale bu xamagul waaye mais ah, alaaji alaaji kenn ki yegg xamul dem dëkk xam xam ki koy boot ki yegg ci kawam dina ko xam dëgg la mais defal ndànk alaaji alaaj ma doon ñëw sa kër ma doon ñëw sa kër mu ñëwee duma xale yi ah mami sam bu ñëwee jox leen tàngal Mm. ah mm. bokkul bu ñu def ko ñetti weer mm. bu ñu nekk la ñuy nekk maag yow bu ñu àndee dugg si baa du man la ñuy kii yow la ñuy gàttandu di paa bu soof baa ngi nii alaaji ay yow alaaji déglu ah, xale tamit day fàtte de xale day fàtte xale du fàtte lu toll ni euh, tëdde ah. ah baax na d'accord man de dumal man de dumal man de damaa dina dangaa yërëm waajo ah déedéet